sunu Buzz TV mbir mi ma ngi wéy di gën compliqué ci journaliste Walfadjri bi lee di wuyee ci turu Thioro Mandela moom mi leen nag xam ngeen ni ni ki démb ña nga leen doon xabaar ni kat dañ ko woolu ca wàllu ko yoon doon ko déglu ci lu soxal mbirum ñoo ñi leen nga xamante ni duppeewoon nañu seen bopp toppukaa te ñu doon te ñu doon leen wax ni sax ñaar ci ay administratrices sa ñoom teg nañ leen ndoxo moom mi leen nag di wuyoo ci turu Thioro Mandela xam ngeen ni démb dañ ko woowoon doon ko déglu ci loolu le waaye nag ni ki tey ji dañoo siiwal ni kat moom ne finalement dañ koy mujj rek déféré déclaré devant le procureur maanaam dafay rek jano ak ki nga xamante ni moom mooy àttekat bi ci lu soxal mbirum ñoo ñi nga xamante ni dañoo duppee woon seen bopp groupe toppkaati jamono ji sax ñi amal ay arrestation yu bari jëmale ca ñoom ñoom ñi leen nag fàttali am na ay plainte yu bari yoo xamante ni siiwal nañ ni kat tegoon nañ ko seenu kaw waaye nag moom mi la di Coro Mané Laye itam lennat ci ay nit wax nañ ni kat liggéey ba nga xamante ni doon na ko def foofale ca Walfadjri moo ko permettre woon mu daal di lënkaloo ak lennat ci ay nit ñoo xamante ni dañuy liggéeyee foofale ci topp ka Sunu Buzz TV.